boo dajeeg muqaddam bu mu wér ni kii muqaddam la yow doo ko tóojal yow. ñàkk war ma ñàkk xam la xew. looloo waral si maam an-Nazifi yi mu ni fala budda munta ñàkk laa wax min taadimi kulli muqaddamin ci moom ci ñu màggal bépp muqaddam. macha allah wa kulli xalifatin ak mboole xalifa yi Seydi Ahmad Tidiane yi dañ leen a war a màggal min in sin moo xam xalifa yi nga xam ni ay nit lañu. wa min jinnati ak xalifa yi Cheikh Tidiane yi nga xam ni ay jinn lañ bu leen xamee nag. waaw. na leer waaw déet Cheikh am ay xarit bi xëy ah, wuu Cheikh xilaafaam gi dafa yaatu sëriñ bi jinne yi ñu ngi ciy doxal lu am solo macha allah léegi Ahmed ñun da ngay bàyyi ñu xam xalifa yi nga xam ne nii ay nit lañu ah ñu xam leen yu jinne yi nag gëm nañ ko gëm nañ ko waaw bàyyi ñu gëm ko rek mais ñu xam nit ñi ah en tout cas si aj Mansour radiyallahu taala anhu ak suñu Babacar am na ay jinne yu bari ñoom ñoo leen doon bindal seen ijaasa yi moom allahu akbar ah waaw xasan ko ah dañ bind lijaasa yi suñu baakar waxoon na ko ñenn mag ñi fii ca ndéqim jak saaw ma ba mu ñëwee te sol mantom ba rek te kenn ku ne naan ñii ndéqi muy nekk fii def <laughs> hmm. mun leen nag ñetti téeméeri muqaddam ak fukk ak ñett yi nga xam ne Cheikh Tidiane am na leen ci biir jinne yi seen ijaasa ya bañ koy bind kan moo ko bind ak lan lañ ca bind ku ne di xool sa moroom mu ni man mii Babacar Si maa ko def allahu hmm. loolu diisul suñ bi loolu loolu loolu du kéemaan di ñun Babacar ñuy wax ci sëñ Babacar loolu day kéemaan ci sëñ Babacar. Hmm. du daara loolu. <laughs> bu dee ci keneen Ahmad Fall bu defoon loolu kéemaan la waaye sëñ Babacar si. Hmm.